clôture de Mac ndaje bi suba dinañu xam ana yan engagement la ñu jël. li ñu mën a jàpp daal fa ñu andi ay coppite ci li jëm ci wàllu gouvernance bi ndax nag loolu mooy tax ñu mën a répondre aux besoins du financement des infrastructures ndax nag bokk na ci lii Afrique gën a soxla jamono ji Afrique dafa di ab continent gu yaatu ndax boo xoolee superficie am toll na ci fanweeri million ci kilomètres carrés waaye nag dara amu fa amul tali amul chemin de fer amul courant kon ñun daal loolu moo ñu gën a yitte waaye pas climat jaww gi bokk na ci sunu ay engagement bokk na ci li ñu gën a yitte moo ñu indi fii ci sommet bu Paris jël nañu sax ay engagement ci wala wàllub énergie def nañ ci ay jéego boo jëlee Sénégal téeméer boo ci jël rek fanweer rek benn yi léegi am nañu énergie renouvelable. Sur